Euh, Meissa mhm. Babou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay baax soxna si. Meissa mhm, Babou ngay économiste euh, tey jii nag ñu bëggoon la laaj lu jëm rek ci wàllu koom gi euh, ci rek feebar coronavirus bi ñu gis ne nag la muy affecté ci àddina bi bari na ay tamit la muy yàq bari na ci wàllu koom gi yow boo ñu doon defal situation lan nga ñuy wax. waaw xanaa wax ne crise bi moom àddina bi mosu fi am jaaxal jaaxal jaaxal jaaxal na ñëpp moo raw. crise bi fi amoon deux mille huit kon day situation tey boo xam ne nii amul benn secteur d'activité du mbay du sàmm du usine buy buy produire du du foire du marché du lépp lépp la affecté tourisme bi moo ci gën a metti sax ak transport bi mm-hmm. ba nga xam ne àddina daanaka sooy xool tey moom moo sukk ay waaw ndax xam nga su doon saxaar euh, Chine moo koy jiite mooy bopp bi <coughs> te Chine ci boppam dafa taxaw usines yëpp taxaw ndax ni ñi ñemeetuñu sax génn seen kër yi pour dem liggéeyi. Mhm. te loolu tay tay fi ni nii commencé naa dal ay région ci biir France ay région ci biir Italie noonu la laale Iran laal ko États-Unis et cetera bref kon pour wax ne lii moom euh, balaa bu yàlla wàcce la ci ci mu mu laal aussi bien économie comme àddina mais mu laal nit ñi parce que tamit ñi ñàkk seen liggéey bari na ñi ragal génn liggéey bari nañ. Eh, donc loolu dana dana nasaxal bu baax a baax a baax a baax nit nit ki ci boppam Mhm. mi nga wax nga ko dina nasaxal eh, nit ñi ba tax àddina bi yëpp tiit rawatina fii ci réew bu Sénégal donte na sax nag ñu ngi garder suñu sang-froid tamit eh, rek ci wàll wi wante ñu gis ne ñu ñu jege lool lu ci mel ni réew bu France réew bu Italie ñoom eh, ñu gis ne lii di seen koom gi ña nga cee bëgg am ay tolof tolof ndax réew bu Italie ñu fàttali ne fafay nga xam ne ci réew tugal yi mooy réew bi nga xam ni moom la feebar bi gën a sonal ñoom ñu ngi bëgg a jël ay jéego daal yu am solo jëm jëmale ko euh, ci koom gi ndax rek seen euh, réew mën a épargner euh, noonee tamit réew bu France ñu gis ne jël nañ ay matukaay tey ndax mën nañoo craindre maanaam ragal li ñu tuddee inflation maanaam bu dalee lu mel ni réew bu France foofee ndax dinañ ko yëg ak wala duñ ko yëg. waaw xam nga comme que ñun yàlla dafa def nag li ñuy dunde yi ci ëpp dañ koy jéggaane biti réew am na la kon nag loo xam ne nii tey su fekkente ne farine bi ñu defar mburu su amee problème Russie fekkente ne eh, soble pomme de terre eh, bii nga xam ne presque Europe lañ koy jëlee te Europe doxatut wala gars yi defatuñ transport bi avion yi sax nangootuñ daw bu fekkente ne ceeb ba ca Thaïlande ak côté asi boobu daanaka dañoo tëj frontière yi day day day su booba non seulement ñoom foofu ci seen biir réew sax da ngay gis ne réserve yi rek la ñuy doxee mais kenn nangootul produire mais ñun su fekkente ne dem nañ ba nga xam ne lool sax mënatuñ caa jot kon dana metti fii ci ñun. Mhm. Mm, dana dana indi jeexi jaaxa ba nga xam ne njëg yi képp koo xam ne ni loola loola am nga ci as stock bu lu ñuy tuuti tuuti ah da ngay jéem a xool noo ko ñoŋale pour gën a mën a yokk njëg yi kon nag yokk njëg moom muy inflation lu war a mën a nekk la. Mhm. tey jii seen naka nga jàppee ni Sénégal war na mën a dundee inflation gannaaw may gisee dëkk bi ñu ko ci nekk di yuuxu naan metti na nguur gi tamit euh, di wax ni euh, parfois amul nag koppar yu doy ngir rek mën a jàppale askan wi tey jii loolee mar détail bu amoon ci Sénégal naka la ko askan wi dundee ak wàllu koom gi naka lay demee. waa xanaa metti metti lay doon parce que xam nga ñun su fekkente ne ceeb bi eh, dañ koy importer lu mat million million tonne fee ca Thaïlande bu fekkente ne li nekk Sénégal li ci li ko réservé yi matul ñaari weer fii ñaari weer wala wala ñetti weer ah loolu su ko commerçant yi xamee xam ne jënd bi mënatul nekk mais dañuy téye ceeb bi su boobaa tamit ah, dañ metti soble noonu communautaire noonu te li ñu li ñu li ñu metti ni mu mettee nii rek dafa doy mhm. donc suñu suñ ci feebar bi gës tegal leneen moom ragal naa ne suñ poos day gën a bën bënn euh, réew mi day gën a metti rek mm-hmm. day gën a ci poche sénégalais yi wax nga ko. Euh, monsieur Babou ngay économiste euh, ba tey euh, ci wàllu conséquence économiques yi ñu gis ne tax na ba tey ji maanaam mbas mile lii di njëgu pétrole bi wàññeeku ci àddina ñu wax ko sànq réew bu Arabie Saoudite moom dafa jël rek décision la dafay wàññi pétrole ba ci vingt pour cent nag bu ñu gisee tamit bu ñuy def en tout cas bu ñuy def xayma gis nañu ne daal pétrole. bi wàññeeku na ba ci 30 pour cent loolee nag mën na nekk euh, lu gën ci réew bu Sénégal ndaxte déjà nit ñi ñu ngi xalaat ne xanaa mën nañoo nag jaaree fii nag wàññi euh, wàllu courant bi euh, nga xam te ni nit ñëpp moom la ñuy jooy tey jii. waaw bu fekkente ne meloo ni Nigéria meloo ni Congo nga xam ne ñoom pétrole lañ yaakaar seen budget assemblée nationale suñ koy voté xaalis ba yëpp dañ naan quatre-vingt pour cent yi wala quatre-vingt-dix pour cent yi sax ci pétrole lay jóge ñooñu mën nañ sonn mais fekkente ne da nga ne réew Sénégal di ko jënd biti réew te eh, njëg gi xalangu lool sax jógee presque soixante dix dollars tey ñi laam-laamee diggante quarante dollars te xam naa ci trente dollars la jëm te eh, comme que feebar bi moom wéragul mën nañ yaakaar ne loolu su ca daanoo tamit mën na faa yàgg ndax Chine mi nga xam ne mooy boppu saxaar gi dafa taxaw doxatut kon pétrole bi daanaka gisatuñu sax ku koy jënd kon nag réewu Sénégal bu fekkente ne yàlla ubbil nañu xewal boobu njëg gi daanu lool war nañ gestu courant bi war nañ gestu essence bi ci euh, ni ñuy jaay ci essencerie yi nga xam ne transport bi dana ci gis boppam moom mën a wàññi njëgi transport bi ba pare tamit usine yi ci réew mi nag euh, dañuy dañ dañ ci dañ ciy baaxaale na ñoom it parce que vraiment xam nga boulangerie day day consommer courant di consommer essence waaw ki yor salon de coiffure am aussi xam nga soo ko wàññilee courant dafay gën a ñoŋ kon nag ci ñëpp la war a baax wante loolu nag mënuñoo poñe gouvernement ne ko danga koy def yenn yi xel rek la njort naa ne xëy na euh, seen seen yërmande euh, su fa eggee daal danañ ko def hmm. wante euh, li ci jaaxal nag mooy nguur gi dafa amul xaalis hmm. te bu fekkente ne lii occasion la pour que ñu am ci bénéfice yu baree baree baree bari ba mën a defaraat tuuti keesu nguur gi ragal naa ne dañuy gëmmu rek bàyyi ñu ci biir di dajale ñoom seeni i weccet. ni mën a foofu sax laa bëggoon nga ñëw monsieur Babou parce que yàgg nañoo gis ni wala di constater ni rek ku mondial ci pétrole day baissé ment wante askan wi di ko yëg euh, ci wàññeetu prix euh, te loolee dafa mel ni en complicité avec le gouvernement la ndax tey ji mm-hmm. li nga wax léegi mun na ko justifier bu fekkee ni nguur gi dafa manqué xaalis donc bu dajalee quelques bénéfices da ko jéem a def ci un de ces trous euh, ndax yaakaar nga ni mm-hmm. tey ji loolu mun na ko expliquer. waaw mën na ko expliquer xam nga li doon jaadu mooy ñu teg commission bu ñu tuddee commission de régulation. des prix léegi commission boobu mi ngi woon ministère des finances moom daraan saytu njëg yi ci biti réew su yéegee mu mu xool fii na ñu yéegale su wàccee mu xool fii ni ñuy wàccee mais commission boobu moo doxatu gouvernement bi daal jéeg ci deux mille quinze bi pétrole bi daanoo euh, au lieu mu wàññi vraiment li mu war a wàññi defu ko daf ci profité kay pour xaalis loolu nag laa ragal ne. moo ñu nar a dalaat àddina wërngal këpp leer na leen ne essence euh, pétrole jarutul dara ban nag dootul lay pour nga mën a yokk ay essence ak yokk ay courant hmm. léegi nag ndax ñoom comme danañ danañ danañ wax wax dëgg yàlla danañ yërëm askan bi rek moom laa doon wax léegi euh, ba man ñu jàppale wàññi courant wàññi euh, essence a ah, loolu nag moom tubaab volonté politique la koy wax damaa xamul ndax ñoom fu ñu ca nag hmm. Euh, mi ngoog donc euh, mais euh, monsieur Babou dernière question bi ngay économiste ma fàttali sa xel màcc jëm ci wàllu koom parfois dañuy dégg ñuy wax spéculation maanaam nañuy nañ njëkk yi di yokkee ci àddina ñu gis ne wax naa la ko sànq suñuy commerçant ñoom ñoo ngi doon jooy di wax lu jëm ci seen i conteneurs yi nga xam ne ña ngi ko bloqué fële ca Chine te mhm. bu yëf yi wéyee maanaam feebar bi bu gën a jéggi dayoo mënees jàpp ni ne rek bu ñu mooy wul jotagul ñu jot ci seen i euh, conteneur te loolu lay dafa am leneen lu muy jox ñoom la ñuy yëngatu euh, tey jii mhm. en tant que qu'économiste lan nga mën a wax ci terme spéculation bu dalee réew bu Sénégal lan lay jur ci wàllu koom gi. waaw spéculation xam nga business la mooy ki nga xam ne tey moom maanaam jaaykatu soble la mu wóor ko ne moom am na ay magasin ay soble yu mu importé woon te mu wóor ko ne euh, léegi importation amatut. ndax feebar bi comme affaire bi doxatut gars yi mënatuñ jëli marchandise moom di ko indi ci réew mi mais su boobaa te mu wóor ne moom stock bi mu yor nii ah, fii ak ñaar ñetti weer kenn du fi importé mais da koy da koy nacc su ko najee teeku di ko génne partout yi day yokk prix bi lam ko jënde woon mën na ko sax doublé hmm. eh, su ko defee naan dafa manqué te fekk vraiment sax manqué wul ci moom xëy na ci bitim la manqué mais moom li mu yor da ko bañ a génne kon loolu mooy spéculation business la boo xam ne ni commerçant yi xam nañ ko yàgg nañ ko def. Mhm. te loolu loi loi bi da koy da koy da koy tere n'est-ce pas. loi normalement da koy tere parce que loolu suñu xamee ne sax yow da nga denc ay stock bañ ko génne normalement euh, dañ contrôle dañ la fa war a dañ ko war a nangu dañ ko war a génne wante xam nga comme euh, information yi ni muy dawee. Mhm. commerçant yi lépp lañ xam dañuy da leen di wóor ne diw moo ko am diw moo ko am kii diw diw mii ko am nangam la ci am. loolu bari na wala bariwul diggante bi du ko fi mën a jaay wala dana ko mën a jaay et cetera information sur la base de ces informations là. Mhm. ci la ñuy xool ndax ñoom dañu war a téye wala dañu war a ubbi dañu war a yokk njëg yi et cetera. Mhm. merci beaucoup euh, monsieur Babou Meissa Babou. maa mhm, ma fàttali ne économiste la maanaam si xel dafa màcc ci jëm ci wàllu koom nga ñu doon defal nag le point un peu euh, ci conséquences économiques yi nga xam te ni mën naa jure euh, ci euh, épidémie coronavirus bi nga xam ne tey jii bàyyul benn dëkk ci àddina bi ñu ngi lay jaajëfal. Mhm, jërëjëf madame.